tëggloo jigéen ñi nga feccloo ak solo yëre yu niru mm-hmm. loolu dafa xew yi loolu sëñ si xamante yeen dafa naan lu xewee ak lu araama yem maanaam loolu di ko def ci jamono ji franchement mën naa ñàkk donc góor ñi di régner ba tey en ah maître euh, may nañ ko diw <laughs> mais sëñ bi <laughs> jéebal kenn du ko maye sëy ab sëy dañ koy takk maye maye net demul maye amul parce que nit koo moom ngay maye nit kenn moomu ko ba di ko maye dooñu wax même wax ne doo bàyyi si loolu xel euh, voilà euh, ñu jeexalee ak discours président de la république pour wax euh, cette fois ci par rapport ak élection locale yi yëkkati na si aussi ay kaddu di à l' maa ngi paraphrasé li ki nga xam ne mooy président de la république il dit en démocratie une élection ne doit pas être une source de violence mais un éloge à la paix et à la liberté une élection c'est l'occasion pour les citoyens seuls dépositaires de la légitimité populaire de choisir ceux et celles qui assumeront pour un temps la charge des affaires publiques en veillant sur le bien commun. mu mel comme président de la république euh, makisal gis na violence yi nga xam ne am na si élection yi nga xam ne sax gis neen euh, cadre unitaire de liste am defoon si ay jéego yu am solo mais bu ñu gisee président de la république Macky Sall ak i ñooñam acte yi nga xam ne ñu ngi koy euh, teg ba élection yi dëgmale ba tey est-ce que mun nañoo jël kaddu kii di président de la république voilà. loolu loolu sax gis nga boo jëloon discours bi. bi <laughs> mu daan def avant naan Ablaye Wade day sàcc élection yi waaye bu ko sàccee daañu ko foqal ci ji. wax ju bari ñu wax ko fii. Uh-huh. Um, bi élection yi jàllee Ablaye Wade dem deuxième tour kenn waxatu dara c'est-à-dire ñun waa Sénégal. noo mm-hmm. war a bay ñoo war a respecter Sénégalais yi. Mm-hmm. li xew fii depuis 1992 Sénégal la tàggoo ak maanaam mënee sa sàcc ay élection au Sénégal. Mm-hmm. avec le code bi nga xam ne moom la code consensuel bi président bi Diouf bi président l'ancien juge euh, Kéba Mbaye jiite wo gis nga Sénégal maanaam nit ñi bu ñuy wote kenn ku nekk ka nga bëgg a woteel dana jot soo carte jàpp naa ku bëgg a ku ne inscrire nga ci liste électorale yi mm-hmm. parce que bis bisu wote boo xam ne bureau de vote yi parti politique yëpp dañ fay nekk mm-hmm. yi bokk Sénat nekk fa ay observateurs yoo xam ne société civile lañu nekk nekk fa kenn mënuloo sàcc ay Sénégal mm-hmm. loolu même Macky Sall la mu doon wax 2012 ci élection ne Abdoulaye Wade day sàcc élection yi opposition bi tey itam di wax waxu sàccum élection ku ci gagné élection da naan lépp baax na kon encore une fois a bàyyi di yàpp Sénégalais di leen wax ne Sénégal mën nañ fee sàcc élection parce que bu Sénégal mënoon sàcc élection ba jàll kon Abdou Diouf du ñàkk nguur 2000. Mhm. kon Abdoulaye Wade du ñàkk nguur 2012. li ma jàpp mooy nit ñi nañ jublu ci wax programme nit ñi te bàyyi nag ay daan diw de sàcc élection yi. ñun avant ñuy ñëw dañu ñëw ay carte israélienne en 2000. coow lu ne cour 2012 aussi lu ne wax nañ ko teewul bi Ablaye Wade demee premier tour kenn waxatul waxu sàcc élection. Macky Sall aussi bi mu demee deuxième tour kenn waxatul waxu élection kon encore une fois. Euh, ñun waa Sénégal nañu respecté Sénégal yi te xam ne Sénégal moom kenn mënut a fee sàcc élection man loolu laa gëm. Mhm. il parle d'apaisement euh, mais aussi euh, honorable vice-président de la République euh, en chef de parti en politique euh, ñu mu gis aussi muy teg acte yoo xam ne mën nañu wax ne carrément aussi kii voilà benn instant mu ngi inciter nit ñi ak benn rébellion pour ne pas dire inciter aussi à la violence gis recevoir ki nga xam ne mooy euh, Djibril Ngom nga xam ne mën nañoo wax ne sax dafa daw ak euh, li nga xam ne mooy euh, voilà donc sur ce coup <laughs> xam nga c'est vrai sax am na lu bees nag ci élection Macky Sall ah. bi am na lu ci bees li mu daan wax ma daan wax day xëble mm. ak ah, di xëbal nit ñi di di di nappaateel bii moom wax dëgg yàlla xëbliwut mm. encore une fois kon c'est une amélioration maintenant uh-huh. c'est li nga wax sànq dëgg la mooy apaisement moom mm-hmm. naam ci ñëpp les actes doivent suivre non apaisement ci ñëpp lañ ko war a xaar uh-huh. ñëpp lañ koy xaar naam waaye nag boo yoree réew mi yow lañ ko gën di xaar parce que nag euh, maanaam organisation élection moom moo ko moom moom lañ ko dénk président de la république ak ministre de l' intérieur moo ko yilif kon encore une fois pour jàmm. Mhm. kon euh, gën kon encore une fois mais jàmm ji moom la ko mën a rek mooy kenn ku ne li nga war a def def yi mu jaat ci yoon benn. parti yi nga xam dañuy bokk ci élection yi kenn ku ne aussi la nga war a def nga def ko. je crois parce que man gëm naa ne Sénégal weesu na fu ñuy sàcceeti ay élection ginnaaw nag bu dee sulul sàcc élection jur ñu saagante ko xooloon nañu indi ay programme waxtaan ci et malheureusement élection yi coolee euh, man daal euh, jàpp naa ne bon puisque moom mooy wote apaisement ah dañ ci mën a mën naa li nga wax sànq ci mbirum jur yu ngam c'est vrai koo xam dafa sàcc élection ay ay matériel électoral parce que Djibril Ngom li mu def du sàcc gu ndaw parce que sàcc am na ak sàcc <laughs> matériel électoral boo ko sàccee ah. mooy nit ki droit boo xam ne constitution bi da koo bëgg koo may nga bëgg ko xañ la c'est vrai parce que le vote participer à une élection pour un parti politique c'est mm. parti les partis participent au euh, euh, suffrage au kon li nga xam ne nit ki droit bi ko may nga bëgg koo sàcc nga bëgg koo xañ mooy ngay sàcc matériel électoral ku mel noonu nag jàpp naa ne du respecte sénégalais yi du respecte sax moom Macky Sall mu di recevoir nit ku mel noonu. c'est vrai waaw loolu moom loolu c'est inacceptable waaye nag aussi euh, du moom rek ñaari moom mooy tarxis parce que nag am naam xay na waa ji def na njubla waaye pour le moment kenn condamné ko ah da nga gis opposition bi ñoo xam ne aussi dañuy coaliser ak ñoo xam ne dañu ne condamné ci njubla loolu aussi jàpp naa ne du du lu mooy leeral xelum nit ñi ci ne classe politique gu Sénégal euh, maanaam. Euh, am na yu ñu respecté daal maanaam respecté wu ñu Sénégalais ci ci ni ñuy doxalee. c'est vrai c'est vrai mais nag li mu def moom a uh-huh. du ñu moom seen mbir ñu dafa dalalu sàcc te waa jooju ab sàcc sax ko gën maanaam li mu def moom dafa garaaw. Mm-hmm. waaw waa jooju moom li mu def inacceptable. man de daan na am xëy na waaye man musuma dégg lu mel noonu xam naa fi nag ay député ay député yu ñu détourné. Mm-hmm. loolu lépp mais nag keneen sàcc matériel électoral <laughs> au ñu dégg ñu ne ña nga ñu naan président recevoir na non franchement ça c'est inacceptable. Ah, c'est euh, yaa ngi wax euh, par rapport ak euh, proposition de programme déggoo ko ci différents candidats yi nga xam ne moom la coalition yi tànn mais dafa mel ni comme ku mel ni Ousmane Sonko moom dressé na commencé na teg programme am gis nañ la keroog ba mu demee Ziguinchor mu ngi wax leen <laughs> dafa bëgg li nga xam ne mooy monnaie locale aussi. pour la monnaie Casamance. Oh, voilà pour la Casamance aussi honorable mu nekk loo xam ne aussi mën nañu wax ne c'est une bonne chose pour loolu waxu caaxaan la waxu waxu picc la ko ah bon franchement waxu picc la fu mu ne Casamance dañoo jógee ci 42 ans de guerre civile Casamance am ay rébellion nekk fa bëgg moom seen bopp doo ñëw naan da wut mu ne Casamance mais li gën a garaaw du loolu. <laughs> lui il est candidat à la mairie de <laughs> maire si maire Ziguinchor même bu demee ba doon ko ban possibilité la am pour def pour région de Kolda région de Ziguinchor région de Sédhiou mu wutal ay monnaie Casamance non yooyu waxu picc la mais li garaaw loolu dafa amoon déjà dans le projet du MFDC mais amoon na projet monnaie Casamance franc Casamance ak banque centrale Casamance boo xam ne dañ ko waroon dañ ko waroon a lëkkale ak banque centrale bu Suisse kon en li ma wax foofu li ma ci jàngat rek mooy ñaar yëpp rek la d'abord un. dafa mel ni Ousmane Sonko euh, maanaam mbirum rébellion dafa nekk ci boppam ba léegi euh, bi ci des mooy bëgg naa dugal ci waa Casamance ne moom mooy seen candidat ça c'est inacceptable les lois de la république bi mbir tuddu mbirum politique dafa tere ab parti ak leader di identifié wu à une région ça c'est inacceptable te nag du lu bees parce que déggoon naa ko benn bis mu naan armée bi dafa bombardé Casamance ngir bañ ñu jàppale ko. alors que armée bi muy bombardé ay zone yoo xam ne MFDC moo ko occupé woon population yi génn armée di di libéré zone yooyu pour waa Casamance dellu si kon encore une fois li ma koy ñaan na bàyyi waxu Cas parce que d'abord Casamance administrativement amatul li am mooy région de Ziguinchor région de Sédhiou ak région de Kolda comme ni ko dégguma benn leader politique mu taxaw naan un franc du Kayor wala un franc des Lébu wala un franc di Fouta na bàyyi mbirum moomu na ko génne teg fi suuf loolu nag bu ko bàyyiwut ñi nga xam ne ñoom la seqal parti nag bu ñu nangu seen parti mu cassemacisé ko loolu mooy benn ñi nga xam ne dañoo gëm ne l'unité du Sénégal dafa war a nekk benn ñooñu tam war nañu am seen fulla parce que nag ba cooli bari musuma dégg Ousmane mu ñaawlu li nga xam ne MFDC mi ngi koy def ñu lakk leen ñi ñu gor xar leen musu koo ñaawlu encore une fois ngay dégg ay rebelle yoo xam ne dañ ne ñoom Ousmane ko seen change la te bañ ko waxee bañ ko waxee ba léegi àdduwu euh, ci encore une fois son discours a été un discours irresponsable Et je crois que la Banque centrale aussi ne manquera pas de réagir. Parce que la euh, zone UEMOA, le président Alabi Maxal, Alassane Ouattara, nous sommes tous, quelqu'un qui nous a frappé monnaie. Frappé monnaie, souveraineté, nous sommes tous les gens qui ont Puis, dans la zone des 8 pays, il n'y a pas boo xam ne mën na fee créer monnaie ngi dégg ay ay xam-xam yoo xam ne dafa ah, damaa defoon sax am na xam ne alal ah, di université amoon na ay ticket yoo xam ne ticket restaurant yi dañ ko daan jaay di ko ko intérêt c'est de la fraude kon encore une fois affaire Casamance Sonko bu amee programme na wax programme am pour commune Ziguinchor parce que foofu la nekk candidat waaye ay mu ne Casamance moom ay franc Casamance moom wala yooyu moom na ko teg fi parce que yooyu jëmul kër Sénégal li mu bëgg mooy ñëpp doon benn Casamance nekk ci biir Sénégal comme ni ci Fouta nekk comme ni ci Kajoor nekk pour ñu nekk mel réew je crois que loolu moom mat a gën a góorgóorlu et puis nag soo bëggee gëm loolu waa Casamance bu ñu amee monnaie rek seen bàmba naat loolu waxu caaxaan la monnaie xaalis la koy jox ni du ay am xaalis yoo ko jël mooy nga liggéey pour am droit am ay monnaie. mais yooyu waxu caaxaan la ko on aura bu ñu xoolee aussi euh, si euh, volet économique mun nañu wax ne ça sera